pardon c'est bon mm-hmm. salaamaaleykum mbooloo mi c'est avec un grand honneur et une réelle conviction que je prends la parole aujourd'hui pour parler au nom des cadres depuis le début Daouda Ngom parlait de nous nous nous aujourd'hui nous sommes là pour présenter le programme de la coalition Diomaye Président mais il faut savoir qui le nous on dit souvent tout ce qui se présente sur la scène est préparé dans les colistes Pendant 12 mois, des cadres ont travaillé dans les coulisses pour aujourd'hui avoir ce programme-là. Le parti PASSEF a innové en matière politique en disant les gars, allons vers le débat d'idées. nañ bàyyi wax sa xalaat te di wax xam loolu la Pastef indi fii maintenant pendant douze mois je tenais à féliciter tous ceux qui sont travaillés si vous le permettez je vais les le parti Pastef a divisé le MONCAP en vingt-six commissariats scientifiques et les mille trois cents cadres du Sénégal et de la diaspora sont répartis dans les vingt-six commissariats scientifiques et permettez-moi de les et de because this day is your day, guys. Cheikh Bitey, commissaire scientifique chargé de l'énergie. Seni Diène, commissaire scientifique chargé de l'hydraulique. Cheikh Fatma Diop, commissaire scientifique chargé de l'économie et des finances. Abou Ndiaye, commissaire scientifique chargé des infrastructures. Daouda Sen, commissaire scientifique chargé de la justice. Fafa Sow, commissaire scientifique chargé de l'élevage, Fatou Diouf, commissaire scientifique chargé de la pêche, Mamadou Lamine Diagne, commissaire scientifique en charge des mines et des carrières, Bokar Khan, commissaire scientifique en charge de l'enseignement supérieur et de la technologie, Babacar Varor, Ibrahim Meng, commissaire scientifique en charge de la formation, Nyambi Sonko, commissaire scientifique en charge du commerce, Ousmane Sissé, commissaire scientifique en charge de la santé, Maktar Dabo, commissaire scientifique en charge du travail, de l'emploi et de l'administration publique, Modou guey commissaire scientifique en charge de l'environnement, Khadi Gaye, Khadi Gaye, commissaire scientifique en charge du sport, Serine guey Gueye, commissaire scientifique en charge de la culture, Adam Ndiaye, commissaire scientifique en charge du transport, Babacar Varor, commissaire scientifique en charge de l'artisanat, Bachir Kobe, commissaire scientifique en charge de l'habitat, Seni Djane, commissaire scientifique en charge de l'hydraulique, Abou Ndiaye, commissaire scientifique en charge de l'infrastructure, Daouda Sen, Fafa je pense que j'ai cité Mahmoud Lamine, Mahmoud enfin, pour terminer, Eba Membeng, commissaire en charge de la formation, Nyambi Sonko, pour le commerce, je pense j'ai déjà cité, Euh, Momatal Ndaw décentralisation Alassane bon Alioune Alioune Dione chargé de l'économie solidaire Alpha agriculture Assane Sow éducation nationale Alassane Gueye bonne gouvernance Ahmed Diallo Ahmed Diallo chargé des affaires étrangères pour montrer pendant douze mois au moment où les gens étaient Sonko tribunal Sonko etc non commercial scientifique se sont concentrés pour écrire ce programme. Maintenant, le 28 janvier 2000, le 28 janvier 2020, 2000, 2024, nous avons rencontré la coalition Diomaye Président dans un hôtel de la place. Nous leur avons le programme. Eux aussi, ils ont donné leur input. J'ai reçu, on a donné le mail et l'ensemble des des, des, des gens de la coalition Diomaye Président ont envoyé par mail leur input pour montrer que oui, le PASSEF a travaillé sur le programme, mais vous aussi, votre expertise, ça compte. Ils ont envoyé leur input. Dambouj a fait une bonne contribution sur l'éducation. J'ai reçu le programme de Mme Mimi J'ai reçu le... De, donc on a tout compilé pour montrer que oui, votre vision, ça compte. Et nous avons compilé tout ça. C'est ce, ce qui nous a permis aujourd'hui de présenter ce programme-là qui est travaillé par 1600 cadres et la coalition Diomaye Président. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme on est à l'ère digitale, nous allons rapidement appeler en tout cas la commission qui s'occupe de tout ce qui est IT pour vous présenter le nouveau site web. Ensuite, Nous allons demander au président Biram Souley de venir vous livrer le message du candidat et après nous allons terminer avec une belle surprise. mbokk yi salaamaaleykum Abdou Lahad Ndiaye bokk ci commission bi nga xam ni mooy saytu lu jëm ci jumtukaayu xarale yu bees yi ci coalition Diomaye Président mbokk yi gis ngeen programme bi nga xam ni le professeur Daouda présenté na ko tout à l'heure et je vous rassure je vais être moins long parce que ce n'est pas un professeur qui parle mais un informaticien donc mbokk yi li ñu présenté tout suite ngeen gis ko de manière détaillée programme la boo xam ni sénégalais yi ñoo ko tax a jóg fait par des sénégalais et pour les sénégalais loolu moo waral la coalition Diomaye président gannaaw bi nga xam ne boroom xam-xam yi fi présenté yépp wax nañ lu jëm ci pro liggéey nañ ci programme bi ci contenu bi la coalition aussi à tenu à ce que ñu développer ay outils yoo xam ni mooy permettre sénégalais yi taxoon ñu koy ñu jot ci programme boobu ñu développer ay outils le sénégalais lambda mën a approprier wu programme bi nga xam ni moo tax mu def ko mbokk yi ci loolu ci la ñu développé ñetti outils yoo xam ni ñooy accompagner la programme te liñ ci jublu mooy fépp fu waay mën a nekk fépp fu waay mën a nekk ci biir réew ak ci bitim réew nga xam ni li nga xam ni moom la le président Bassirou Diomaye Faye di proposer sénégalais yi loolu moo waral sax kàddu gi ñu commencé ko ci kàllaamay nas euh, euh, Kocc Barma ngir ñépp jot ci li nga xam ni mooy le contenu du du du programme du du projet projet yooyu outil yooyu bi ci njëkk mooy le site internet Diomaye Président point sn lancé dinañ ko lancer officiellement dans quelques instants bu ñu mettre à jour le site avec le programme officiel bi nga xam ni moom la président euh, le professeur Daoude présentait tout à l'heure ci site internet bi bu ngeen fa demee rapidement da ngeen fay fekk ay juróomi ongle juróomi rubrique yoo xam ni bi ci njëkk mooy le candidat mooy Bassirou Diomaye Faye ndax dañ ni Sonko mooy Diomaye mais aussi du ay wax kese dañ leen di présenter Bassirou Diomaye Faye ci profil bi ci jaar-jaar bi ak ci xam-xam bi ba ngeen xam ni vraiment Sonko mooy Diomaye bu ñu jugee foofu ñu présenter leen la coalition ndax aussi war ngeen xam ni les sénégalais lambda am na ñoo xam ni Cheikh rek la ñu gëm am na ñoo xam ni capitaine Touré la ñu bëgg am na ñoo xam ni xëy na peut-être sama doyen Madieye Mbodj sama mbokk njàmbur moom la ñu bëgg te ñoom ñépp nga xam leader yi dañoo ñëwaat ni ñoom ñoom ñooy jomaay looloo waral ñu jël benn rubrique boo xam ne dañ ko destiné la coalition présenté fa leader yépp seen vision ak seen gis-gis beneen rubrique bi mooy sunu programme bi nga xam ne xëy na moo ëpp lu jël li bi jël bu ngeen fa demee da ngeen fa fekk programme bi ñu def ko ci ay anam yu mucc ayib ba sénégalais yi mën ci jot beneen bi ci topp mooy les communiqués ak l'actualité boobu dama ci profito jàllale message boo xam ni les membres de la communication ñoo koy jàllale ñu xam ni lépp lu officiel lépp loo xam ni euh, coalition bi moo ko valide foofu lañ koy fekk leneen lu ñu fekk feneen mën nañ ci bañ a bàyyi xel wala mën nañ ci am ak teey mbokk yi bu ñu jógee foofu muy le site internet beneen outil bi nga xam ni la coalition waaw balaa may jàll bala may Chérif mere am na aussi benn bouton boo xam ne yaakaar naa mu ëpp solo mooy bouton bi nga xam ne moom lañ gis bu zone bi ñu bind ci donate boobu mooy permettre ñu jàpp ci combat bi jàpp ci xeex bi ci cliquer dina leen yóbbu ci ay barab yoo xam ni maanaam du leen wax la fa ne waaye daal dem leen xool loolu dana permettre ngeen mën a jàpp ci combat bi am na aussi beneen bouton boo xam ne mooy rejoindre la coalition pour leader yi nga xam ni bëgg nañu rejoindre la coalition mën nañ fa directement uploader seen demande ak seen i statut et cetera pour Euh, kilifa yi mën ci jot. ma jàll ci beneen outil boo xam ni développé nañ ko mu war ànd ak euh, le programme muy bouton bi ngeen gis nii muy ab bouton WhatsApp da lay yóbbu ci réseaux sociaux yi muy benn euh, numéro boo xam ni moom la ñuy tuddee le chatbot chatbot bu ngeen ko déggee jumtukaayu xarala yu bees yi la nga xam ni intelligence artificielle moo ko moo nekk derrière. nga xam ni dafa lay tontu ci lépp loo xam ni mi ngi jëm ci programme bi mi ngi jëm ci sunu candidat numéro bi dinaa leen ko jox après su ngeen ko enregistré day nekk un contact simple ci seen numéro ci seen téléphone te di ngeen a mën a wax ak moom bu ngeen duggee ci di koy gis nii muy mel lay mel su ngeen ko nuyoo moo xam bonjour lay doon moo xam salaamaaleykum dina leen tontu. dina ni la bonjour laat mu ni la man maay jomaay son jomaay mooy Sonko boot bi nga xam ni présenté Bassirou Jomaay Faye moo ma tax a jóg wax ci programme bi permettre la képp ku mën a joxe xaalis ci programme bi jàpp ci xeex bi et aussi ak yeneen bonus yoo xam ne si nii mi ngi ci biir te it am na lu ci am booy wax ak moom mën nga choisir langue bi nga xam ne moom nga bëgg muy wolof walla français wala séeréer wala pulaar bu ko defee su ma nee ko français laa bëgg mu ni ma super dencal naa la ay vidéo ak ay audio yoo xam ne si ci français laa la koy defal bu ko defee nga mën a parcourir ñett yi ma la waxoon wala ñeent muy le candidat Bassirou Diomaye Faye le programme wala aussi sax nga mën a vérifier sa statut électoral ba xam génne nañ la ci fichier bi ba xam transféré nañ la wala ba xam yaa ngi garde toujours sa droit yi nga xam ne am nga ko su ma jëlee exemple ma ni ko découvrir le candidat par exemple dina ni ma super lan nga bëgg a xam ci Bassirou kan mooy Bassirou wala lan la Bassirou wax ak divers témoignages yi nga xam ne ay nit def nañ ko ci Bassirou mun naa jël ni ko kan mooy Bassirou su ma nekk kan mooy Bassirou dina ma tontu dina ma wan photoom wan ma li nga xam ni mooy parcours am wan ma lépp loo xam ne si nii mi ngi aju ci Bassirou wax ak man su ma bëggee wàññeeku ma tàppee quatre-vingt-dix-huit na ngeen xam ni nag bind kenn du ko vocal wala ñu koy bind waaye ci ay chiffres ngay wax ak moom ndax mu gën a yomb donc maa ngi dellu ci waat ci menu bi nga xam ni mooy bi ma waxoon sànq su ma ñëwee foofu bu ma neexoon aussi ma def de le mot du candidat foofu bu ma ko defee dana ma tontu daf may indil benn ojo boo xam ni le moo du candidat la may defal mu ànd ak texte bi nga xam ni moom la candidat bi wax te it nag mu defal ma ko ci kàllaama bi nga xam ni moom laa tànnoon sànq. xaw ma ndax dinaa ko mën a taal pour jox leen exemple mais bu demoon da ngeen gis ni ay voix yu am solo ay langue yépp am na langue nag yoo xam ne yeggaguñ fa mais incha allah fii ki fan dinañ ñëw ñu yegg ci loolu. donc loolu moom mooy. Euh, chatbot bi nga xam ne ñu koy présenté ni ma ko defee nii nag ci candidat bi bu ngeen demee ci programme bi lay gën a yéeme ndax bu ngeen demee ci programme bi rubrique bu nekk dina la indil détails yi yegg ba ci axe yi yegg ba ci orientation yi te benn bu nekk dina la jox détail bi jox la ojo boo xam ni ci français nga koy dégg wala ci wolof wala ci pulaar wala ci séeréer te loolu liñ ci jublu mooy sénégalais yi nga xam ni ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ñu xam ni kilifa yii toog fii ak Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane fowuñu fóoluwuñu wun li ñuy wax lu wér la la ñuy wax lu dëggul la te bëgg nañu kenn ku nekk mu tàbbi sa nopp ba nga xam ni liñ la wax mën naa war naa mën a nekk wala waratu mën a nekk looloo waral ñu exhorté ñu ñu def liggéey bii mu accompagner programme bi nga xam ni moom lañ doon présenté kon mbokk yi ma gàttal foofu ci li nga xam ni mooy chatbot bi numéro bi nga xam ni moom lañ ci amee mooy numéro bii 76 882 40 10 su ngeen ko enregistré tout de suite contact lay doon ci yéen ngeen mën di wax ak moom mu commencé di wax ak moom ngi koy laaj mu leen di tontu ci programme bi ci Bassirou ak seen statut. Alaaji Malick temps amul xam naa. mais li des rek nga xam ni mën naa ko wax rapidement mooy ngeen xam ne aussi beneen outil bi nga xam ni nag def nañ ko mooy les outils de podcasting mooy ay son yoo xam ni ni niñ ko defee sànq ci ci bind mi noonu lañ programme bi dañ koo def ci langue yépp langue yi ñu présenté sànq muy juróom yi gën a fees pour le moment nga xam ni mën ngaa toog ci sa kër di togg teg say écouteur sa nopp di dégluwaale programme bi mën ngaa toog sa kër wala nga toog sa atelier yor sa machine di liggéey di dégluwaale programme bi wala mën ngaa nekk sa bureau aussi di dégluwaale programme bi loolu mooy les podcasts yi nga xam ne accompagné na le programme waa incha allah voilà podcast yi aussi mu ngi nii dafa accompagner site internet bi page boo dem di nga gis ni ah, dafa ànd ak audio yoo xam ni ñooy traduire li nga xam ni moom lañ bind mbokk yi kon loolu mooy li nga xam ni moom la commission yi nga xam ne ñoo nekk ci jumtukaayu xarale yu yees indi woon ñu ko doon présenté dañoo bëggoon def benn résumé bu ndaw en français waaye xam naa ne El Hadj Malick du ñu ko may ndax temps amatul mais incha allah bientôt dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen émission yeneen détails yoo xam dinañ gën a présenter les outils. Alaaji Malick maa ngi lay remercier di yaakaar naa ni. Alaaji Malick nga baal ma dama xam lu ma fàtte. dama fàtte rek ni waa cadre yi nga xam ne ñoo doon liggéey ci programme bi ni ñu remercier ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon. dama bëgg aussi remercier ñi nga xam ne ñooy les experts informatiques yi nga xam ne ñoo nekk derrière outils yi ngeen di gis yëpp ci informatique bi ñu ciy jiital chef muy Jacques Diop kuy ku wu kuy làqatu mu ngi ci ginnaaw <laughs> donc maa ngi remercier ñi nga xam ne ñoo ngi Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci diaspora bi je vous remercie jërë ngeen jëf salaamaaleykum merci beaucoup yaakaar naa ne def ngeen li Steve Jobs doon wax naan innovation distinguish between a leader and a follower te yàlla dogal na ne ñun dañoo mas a di jiite gars yi di ñu copier mais toujours copier mais jamais égaler alors kon euh, fi ñuy daanelee rek dañuy dalal tamit parce que tey ci bésub tey bi dafa am ay candidats yu am solo yoo xam ne ñëw nañ ci projet bi ñu ciy dalal as docteur Abdourahmane Diouf